ginnaaw ay vidéo yoo xam ne ñu ngi koy daal di partagé sénégalais yu bari di partagé la nga xam ne rek ah, moo di ay vidéo jëm ci ki nga xam ne moo di Mansour Faye jamono ji nga xamee ni rek ñu ëpp ci sénégalais yi la ñu bëgg rek moo di ñu jàpp wala itam ñu indi la nga xam ne rek moo di seen alal ji nga xam ne dañ ko luubal ñi nga xam ne rek ñoo fi nekkoon ci nguur président Sall waaye itam ñu joxoñ leen baaraamu tuuma jëm ci alal yoo xam ne dañ ko luubal moo di rek alalu askan bi tax rek yenn ci Sénégal yu baree bari rek jël li nga xam ne rek moo di ay vidéo yoo xam ne Ousmane Sonko yëkkati woon ci ay kaddu daal di koy jëmee ci ki nga xam ne rek moo di Mansour fay di wax ne rek ki nga xam ne rek moo di Mansour Faye mënta raw benn yoon ndax kat problème yi nga xam ne Sénégal mi ngi koy daal di jànkoonteel lu ëpp ca loole daal Mansour fay moo ko daal di waral lool nag te ay kaddu yoo xam ne kii di Ousmane Sonko moo ko yëkkati woon daal di koy jëmee ci ki nga xam ne moo di Mansour Faye moom nag jamono ji nag ma ngi ca guddi gu bët setagul ndax kat euh, vidéo bi nag ñu bari ci senegal yi ña ngi koy daal di partagé ngir rek di xaar la nga xam ne Ousmane Sonko daf ko waxoon jëm ci ki nga xam ne moo di Mansour Faye ñu teewlu boobu la vidéo Mansour Faye raw fii ci Sénégal parce que Mansour Faye dama bëgg ñu xam li ëpp ci problème ñuy jonkanteel Mansour Faye mooy responsable ndox mi ñuy wax nii Mansour Faye mooy responsable ndax moo nekkoon foofa ba ñuy def ñuy def ba jël suñu ndox jox ko waa Suez alors que SDE moo jox moo amoon meilleure offre bi mu jox ko waa Suez ñooñu wëlbati ko jox ko ay camion yuy fa yuy yuy ramasser mbalit mu yóbbu ko Saint-Louis loolu la wax corruption tey Suez mënul gérer suñu ndox bi. chaque jour kuy xamam loolu responsabilité Mansour Faye ñaareel problème assainissement bii ñuy wax nii 750 milliards moom moo ko doon gérer bëgg après élection yi wala juste avant élection yi lañ ko jox leneen waaye yemul foofu bi ñu nee euh, euh, euh, feebar bi dugg si na corona bi ñu ne budget 1000 milliards ceeb beeg diwlin beeg ñoom seen ci loxoom lañ ko teg. kon boo xam ne lu mu tuuti tuuti yor nga suñu mille cinq cent milliards yoo xam ne sa loxo la tegu lu bokkul la yeneen ba pare ña ñemee manqué respect sénégalais ba mun a taxaw seen kanam ne leen su ma of nag waaye du ma fa dem ma ne Mansour Faye ci nii wala ci nële day gàtt wala day gudd yow ak ñi mel ni yow mënu leen rëcc di ngeen rendre compte dans ce pays là loolu rek mooy le débat boo xam ne moo war a intéressé Sénégalais yi te nag benn responsable moo moo moo moo moo mooy responsable bi mooy Macky Sall ndax nga xam ne munoo ne lii la jàng munoo ne lii la xam lu mu dugg mu lënt nga jël ko jël ministère bi gën a rëy ci suñu ministère yi jox ko ko lu diis ci Sénégal nga jox ko lépp nag pour waajal dauphinat mooy lu ñuy fexee ba moom mu wutu ndax Macky ragal na ragal boo xam ne ci li mu def ci réew mi jàpp na ni su fi jógee kenn rek moo mën a toog mu mucc. mooy Mansour Faye wóoluwu ci Amadou Ba wóoluwu ci Matar Cissé wóoluwu ci Mimi rek wóoluwu ci wóoluwu ci ñoo ñëpp il faut mu écarté leen moo tax tey ñu koy xàllal pour mu mun a am ay milliards yu mu demee nit ña seen xel lañu yor mu ngi leen fexe ba nax leen